أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi jël buntab juróomeel muy baabun man tabarraka bi shajara aw xajar wa naxwihima bunt bi ñuy jël dafa bokk ci bunt yi nga xam ne ci sunu réew mi nu nekk jàngale ko fi walla waxtaane ko fi lu jaadu la ndax mooy buntu barkeelu ci garab walla xeer walla lu mel noonu xam ngeen ne mbirum barkeelu ci Sénégal lu fi bari la te nit ñi lu ñu ko bëgg lañu léeg-léeg nga gis nit ñi di barkeelu ci xeer ndax xeer bi am na ku ko mosoon a laal foog ma laal ko am na ku ci mosoon a toog foog ma toog ci walla garab garab gi am na ku ci mos a noppalu dinaa ci noppalu am na ku ko mas a raay dinaa ko raay am na ku ci daggoon naan dinaa ci dagg naan mbirum barkeelu boobu nag li tax ñu war cee sonn di ko jàngale ak di ko fàttali xeet wi mooy ñu ci bëri daf leen a alak daf leen a dugal ci bokkaale li tax may daf leen a alak mooy da leen a dugal ci bokkaale te bokkaale ku ci dugg alku nga moo tax bu ñëwee ci min ahdafi dars ci jubluwaay bi nga xam ne moom lañ jublu ci jàngale leçon tey bi mooy ki koy déglu wala ki koy jàng da ci war a déggee ma maana atabarruk lan mooy maana barkeelu barkeelu mooy lan nan lañ koy defee fan lañ ko war a def ci lan lañ ko war a def ñaareel mooy an yufarriqo altaalib bayna tabarruk almashru walmamnu kii déglu leçon tey bi dina ci jëlee mën a ràññee diggante bokkaale gi ñu yo barkeelu gi ñu yoonal ak barkeelu bu ñu tere dafa am barkeelu bu ñu yoonal bii nit mën na ko def am barkeelu boo xam ne mamnu dañ koo tere léegi nag ñaar yooyu foog ab julit mën koo ràññee mën koo xàmmee ñetteel mooy an yunqida altaalib filu almushrikina fi talabihim albarka min al ahjaari albaraka min al ahjaari wal asnaami mooy ki jàng leçon bi wala ki koy déglu wala jullit bi mën a xam bu baax bokkaalekat yi nit ñu daan sàkkoo barkeelu ci ay xeer ak ay garab ak ay xërëm bu ñëwee ci madaxalul baab dugginu bunt bi danañ gis ne albarkatu albarakatu yajibu an tutlaba min allah wahdahu fa huwa annafiu ddar barkeelu sàkku barke dina war waaye ci yàlla subhanahu wa taala kese ab jul di ko sàkku ci yàlla ndax yàlla moo mooy ku barkeel yàlla moo am barke jàngeen ci alquran tabaraka alladi bi yadihi lmulk wa huwa ala kulli cheyin qadir barke yàlla moo ko yore ku ko bëgg na ko sàkku ci yàlla subhanahu wa taala ci moom yàlla dong kot lañ koy sàkku fa huwa moom yàlla annaafiu addaar mooy jëriñe mooy lore kon booy ut barke ut ko ci yàlla subhanahu wa taala wa talabuha min gayrihi sàkku barke ci keneen ku dul yàlla shirkun bokkaale la di ut barke ci keneen ku dul yàlla bokkaale la yunaafi ak tawxid dafa dàqonte ak tawxid tawxid mooy kennal yàlla aw kamalihi wala matuk tawxid képp ko gis muy sàkku barke ci leneen ci keneen ku dul yàlla kooku tawxidam matul pas-pasam wérul tawxid boobu nga xam ne ku ko am yàlla rek ngay jublu saa yoo gisee nit jublu ci leneen li muy tekki mooy tawxiidam dafa dafa des idan fa alayna alxadaru min zalika kullihi doomu ndey kon dinañu war ñu moytandiku lépp loo xam ne dafa safaanoo ak li diine di jàngale pour ñu xam ne barkeelu ci ay garab barkeelu ci xeer dañ koo tere mooy aaya alquran bi yàlla dañuy wax ci suratu najmi aaya 19 aaya 20 sunu borom subhanahu wa taala mi ngi ñu fay jàngal di wax ne baada audu billahi min alshaytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim afaraaytum allata waluzza wa manata alsalisata aluxra sunu borom nee na afaraaytum xanaa gisu leen wax leen ma allaata xërëm la lan mooy laata ñu ne boroom xam-xam yi nee nañ xiila ismu rajulin turu benn waay la bu daan sonn ci aj pour nit ñi bañ a am coono waa ji daal di faatu gars yi defal ko estati toog ci estati bi di ko di ci barkeelu kuñ naan amas nee na laata ñu ngi ko tër ñu ngi ko jëlee ci turu yàlla al ilah wal uzza ñu ngi ko jëlee ci al aziz laata ñan ñoo ko doon jaamu mu ne ahlu thiqaf ñooñ ñoo ko doon jaamu kon atabarruku barkeelu mooy talabul barka sàkku barke lan mooy loolu hiya dawaamul xayri wa kas wa kasratihi mooy lu baax li ma nekk na continuer waaye na bëri loolu mooy sàkku barke sunu borom nag di ñu wax ne waa Quraysh ñoom yàlla xërëm garab guñ doon wax uzza moom lañ doon jaamu moom mooy afara aytumu laata wal uzza kon laata turu benn waay la woon bi mu faatoo fa lamma maata akafu ala qabrihi bi mu faatoo gaa yi daal dem buuf ci bàmmeelam wa qiila ismun li soxra ñenn ñi ne déedéet turu benn xeer la woon kaanu yaabudunaha fi taif taif lañ ko waa taif ñoo ko doon jaamu moo tax yàlla di leen won ne leen xool leen laata xool leen uzza xool leen manaata uzza garab la woon moom garab la woon diggante màkk ak taayif la nekkoon nit ñi ku fa jaar rek daal di dagg ci xob yi ñii daal di dindi ci xas yi ñii gas ba jot reen ji dagg ñu jàpp ne am na lu mu leen di jëriñ amma manaata moom sanamun xërëm la woon bayna makka wal madina diggante makka ak madine la nekkoon moom manaata kon lii leer na nañu ci aaya bi sunu borom subhanahu wa taala di ñu tere lépp luy xeetu estati lépp luy xeetu barkeelu ci garab lépp luy xeeru xeetu barkeelu ci xeer aaya bi wér na ne sunu borom subhanahu wa taala loolu la ñuy tere ndax waa màkka li lañ doon def yàlla wax ko ci alquran ci suratu najm aaya 19 aaya 20 yàlla di ko araamal kon mbokk yi su ñëwee ci élément leçon bi anasiru dars dinañ gis aqsaamu tabarruk xaaji barkeelu yi barkeelu ay xaajam yanqasimu tabarruk ila qismayni barkeelu ñaari façon la tabarrukum mashru barkeelu gu ñu yoonal suñ nee dañ koo yoonal mooy dagan na ku ko def wa huwa iltimasul barakati min cheyin ulima bichari annahu mubarakun bu njëkk bu ñu yoonal bu ñu bëgg nit def ko mooy nit ut barke ci loo xam ne sharia daganal na ko wa sharia sax wax na ne barke ngi ci yemu ci daganal ko mais dafa wax ne barke ngi ci ku may jox misaal ku may jox benn misaal xajaratul aswad xeer la mais ku dem màkk da nga koy laal lu waral loolu parce que yàlla moo ñu ko wax yonent bi moo ñu sant ñu laal ko yonent bi da ko laaloon fóon ko moo tax Omar ibnul Xataab bi mu ñëwee ba ci xajaratul aswad da ko joxoñ ne ko alimtu annaka xajar la tadur wala tanfa walaw lam ara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqbiluka ma qabaltuka qat yow de xam naa ne xeer kese nga doo jëriñ doo lor wallahi su ma gisuloon yonent bi di la fóon du ma la fóon mu daal di fóon xeer bi continue gis nga roy na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi defoon kon barkeelu gu ñu yoonal mooy loo xam ne lislaam wala yonent bi moo la ko sant alquran wala yonent bi moo la ko sant ne la lii laal ko wala def ko su boobaa boo ko defee dangay am tiyaaba beneen mooy naan ndoxum zam-zam boo naanee pare nga diw ci sa yaram lu tax parce que yoon la sharia moo ko yoonal yonent bi moo ko jàngale naan ndoxum zam-zam ndax wér day faj feebar jàngaro ndax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na innaha mubarakun moom ndoxum zam-zam dafa am barke innaha taamu tuami mooy ñamu ñam ñi kon yonent bi dafa orienté nit ñi pour ñuy barkeelu ci ndoxum zam-zam wa fi riwaaya ñoo na ci beneen riwaaya yonent nee na zam-zam taamu tuami wa shifaau saqami zam-zam naan gu am cafka la waaye naan la guy faj bépp feebar shifaun saqami garab la guy faj bépp jàngoro yor naa ay document yoo xam ne ay nit yu feebaroon dem Kaaba ga loose fa ay fan di naan ndoxum zam-zam ba wér king ñenn ñi dañoo amoon cancer ñenn ñi dañoo amoon feebar yoo xamante ne seeni docteur dañ leen a condamné woon ne yéen sayee da ngeen di dee ñu dem ba ñu xamee ne dañuy wax nañ leen ne da ngeen di dee ñu dem dëkki Kaaba ga weer ak genn wàll ñoom ñépp ñu wér ñibbi seen dëkk am na ci koo xam ne bi mu ñibbee dem ci docteur bi ko woon ne sayee docteur bi dafa tiit kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu ñu jàngal ci ndoxum zam-zam mooy dëgg mooy li ci nekk innaha mubarakun innaha taamu tuami bu ñëwee ci tabarruk mamnu barkeelu gu ñu araamal tere ko mooy ut barke ci mbir moo xam ne l'islam santaane wu ko yonent bi jàngale wu ko ak islam atte wu ci dara bu ñu joxe misaal inna itiqaada an hadha shay yamnahu lbaraka bi zaatihi gëm jullit bi gëm li muy gëm ne lii dinaa ci jële barke comme benn garab gis ngeen Omar ibnul Xataab dafa dagg garab googu ngeen dégg ci alquran yàlla di ko wax te yonent bi toogoon ak saxaaba yi jaayante fa ak ñoom mooy bay atu ridwan is yubaayi'unaka taxta shajara laqad radiyallahu anil mu'minin is yubaayi'unaka taxta shajara du loolu garab la yàlla nee na subhanahu wa taala man yàlla gërëm naa saxaaba yi keroog ba ñu toogee ci sa wet yow muhammad ci keppaaru garab ga ñuy jaayanteeg yow garab googu Omar da koo dagg dafa jël jaas yi santaane nañu gor garab gi ba lakk lépp mu gas ba mu xóot suul garab gi lu tax parce que bañ jullit ñi di ci bokkaale ndax ku ñëw rek dagg ne garab yonent bi fii la toogoon ku ñëw jël ci xas mi yonent bi fii la toogoon Omar joxe ndigal nañu gor garab gi imagine leen nag ñun tey ci suñu dëkk waxuma la ay garab mais am na fi ay ndox am na suuf am nay xeer am nay lu kenn xamul lu nekk te loolu bokkaale la bu fekkoon ne bàyyi garab nit ñi di ko raay am na njëriñ garab gi yonent bi toogoon kon ñu bàyyi ko fa waaye xoolal Omar dafa dagg garab gi parce que yonent bi génn àdduna Babacar génn àdduna nit ñi di commencé di bokkaale Omar ñëw dagg garab gi même teen bi nga xam ne jaaro yonent bi daf cee sóobu woon yonent bi amoon na benn jaaro bu ñu bindi laa ilaha illallah muhammad rasulullah jaaro jaaro bi dafa mujj ci benn teen xam ngeen teen boobu fu mujj dañ ko sakk ndax nit ñi di ci reyante guddeeg bëccëg bëgg a ŋacc ndox mi ba mu jeex wëri jaaro ba ku nekk jël ko yor ko dañoo mujj sakk teen bi parce parce que jullit ñëw yorom mooy te ndiku bokkaale parce que yonent bi dox jaaroom daanu na fi ndox mi ku ci naan da ngay dugg aljanna ndax jaaro baa ngi ci biir ñu sakkateen bi kon diine ji dafa mës a taxaw di fàtt bépp bunt boo xam ne day ubbil jullit yi bokkaale moo tax mu ne bépp pas-pas bu jullit am di barkeelu ci ay garab ak garab gi fu mu mën a ne ak ku ci mën a toog ak ku ko mën a jëmbat ak nu ñu mën a tuddee garab googu lislaam daf ko dàq ndax barkeelu ci ay garab amul amul place ci lislaam awil ahjaar wala ay xeer ngay dégg ñu ne diw toogoon na ci xeer bi diw jàppoon na ci xeer bi diw yéegoon na ci montagne bi nit ñi di dem di yéeg ñii di bërëngu ñii di toj ci xeer bi ànd naa ak ay jigéen ñu dem ba fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nëbbatu woon jour bi muy ànd ak Aboubacar Saddiq di génn Makka di jëm Médine ñu dem ba yegg taxaw ma gis jigéen ñi di for ay xeer di fas ci seeni lafu sër ma laaj leen lii pour lan la ñu ne ma ah fii de dañ ñoo wax ne ku fi yegg si di nga fi for juróom-ñaari xeer man leen def xaram ñu ne ma dafa xaraam araamul boo waxee boo waxut bu yeboo nga noppi ñun dañ koy yóbbu ndax fii ku ñëw def ko man leen dafa xaram xeer amul njëriñ ci lislaam jullit bu bëggee tiyaaba day jaamu yàlla xeer amul njëriñ waaw ak xeer bi fu mu mën a xeeroo su ko yàlla santaanewul nañ ko laal yonent bi santaanewu ko ku ko mën a santaane da ngay dugal nit ñi ci bokkaale awil qubuuri saalihin wala bàmmeelu nit ñu baax ñi li ngay gis nit ñi di raay ay bàmmeel dafa xaraam ab jullit jël bam loxoom di ko raay ci bàmmeel di ci barkeel loolu dafa xaraam tamaaman ak bàmmeel bi ku ci mën a tëgg dafa xaraam gis nga ñiy dem di aji di ziyaara ji yonent bi Medina soo demee da ngay fekk ñu koy garde kenn du laal da nga ko dul gis sax parce que dañoo tëj porte yi da ngay séen rek ci gunban yi wala giri yi ngay séen waaye doo ko musa laal parce que dafa xaraam suñu bàyyee jullit ñi léegi di nga gis ku ñëw tëdd ci parce que dañoo ëppal amuñu dal ba pare jànguñu seen diine jullit dafay moytandiku bokkaale ci ay garab ci ay xeer ak ci ay bàmmeel bàmmeel bi amul benn njëriñ te li gën a garaaw yonent bi nee na rubba qabrin yukaf wa saahibul qabru fi naar bëri na bàmmeel bu ñuy wër di jooy di yuuxu di ziyaare bàmmeel bi yonent bi nee na borom bàmmeel baa ngi safara kon kan da ngaa xam yow kii ngay raay bàmmeelam ndax mu ngi safara wala nekku ah kon ba barkeelu ci bàmmeel yonent bi daf ko tere sallallahu alayhi wa sallam di raay bàmmeel boobu di ci yaakaar njëriñ wala nga ciy làqatu pour lor ak yeneen yu mel nii lislaam daf ko araamal mbokk yi su bàmmeel daganoon a raay kon yéen ñiy jóge fii di dem mag danañ ubbi bàmmeelu yonent bi ñu ne ñëpp kaay leen raay fekk na ay boroom xam-xam yu nekk ci baxiya fi ñu suul sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi ñu suul lenn ci ay soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam armeel yooyu nga xam ne dañ ko tuddee jannatul baqi yonent bi nee na al armeel yooyu aljanna la suuf soosu aljanna la dugg naa ci armeel yooyu jubal ba ci benn bàmmeel bu ma daan dégg ñu ne lii bàmmeelu diw la ma bëgg lu leer ma ñëw fekk benn borom xam-xam taxaw ceetu bàmmeel bi boot ay loxoom tiim nii bàmmeel bi ma ne ko asalaamu aleykum mu ne ma waaleykum salaam ma ne ko haza qabru man mu ne maa fi faida addu'a faqat ma ne ko man huwa mu ne la huwa sahabi ida daawta li ashaabil jamian faqad daawta lahu ma ne ko bàmmeelu kan la mu ne ma amul njëriñ bàmmeelu sahaaba la ma ne ko ban sahaaba la mu ne ma ñaanalal sahaaba yëpp boo ñaanalee sahaaba yi kii tëdd fii di nga ko ñaanal xam turam amul njëriñ loolu la ma waaji tontu kon nga xam ne su fekkoon ne kon dem ci ay bàmmeel di tëbb di yuuxu wala di tibb ci suuf si wala di ko raay di def sa kanam wala di def sa dënn am na njëriñ kon foofu suuf du fa des kenn du ma ne ñi tëdd foofu ñi tëdd fii leen gën kenn du ma wax loolu fu ñu suul Ousmane Ibn Affan ah suul fa Xasan suul fa waa kër yonent bi suul fa saxaaba yi doon ànd ak yonent bi kenn du ma wax ne suulu ñu fa ñu am barke waaye raay ay bàmmeel moo amul importance moo amul place ci lislaam ñaareel mooy na inna inna itiqaad anna haza shay sababun li xusulil barka gëm bi ngay gëm ne mbir mii may raay wala mbir mii may diw ci sama kanam dina ma indil barke wuuteeg yàlla ah loolu moom dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bokkaale la mu ne kaman yatamassa bi maqaama ibrahim wala maqaama ibrahim léeg-léeg buñ la wanee kaaba gi photo bi di nga gis ci côté am tuuti benn case bu neex boo xam ne dafa mel ne or lañ ko tabaxee benn case buy melax mel ne or kaaf comme kaaf misaal mën nga ne moo gën a rëy kaafu seko ñu ne foofu la maam Ibrahima daan tabax daan taxaw bi ñuy tabax kaaba gi mook doomam Ismaayil da ngay gis sax nit ñi ñëw di ko raay même loolu dañ ko sib même loolu dañ koo sib dañ ne boo ñëwee ci kaaba gi wër ko ba pare juróom-ñaari jéego juróom-ñaari wër tuur juróom-ñaari tuur boo ko wëree ba pare na nga reculer soo jeexalee nga dem ci place boobu nga julli fa ñaari ràkk loolu lañ la sant mais waxuñu la nga ñëw di ko raay waxuñu la nga ñëw di ko fóon même loolu dañ ko sib waxuñu dañ ko sib waaye fa zalika sirkul asgar loolu sax dafa bokk ci bokkaale yu ndaw yi waxuma la sax mu nekk lu ñu sib lu ñu bañ waaye bokkaale yàlla bu ndaw la amma itiqaad anna haza al amal mimma yuqarribu bihi ila allah fa huwa haram boo jàppee ne sax raay bi may raay nii daf may jegeel yàlla loolu moom dafa haram ba pare moyen la bu la yóbbu ci bokkaale wa wasila ila shirk benn bunt la bu lay buy ubbeeku nga war cee jaar dugg ci bokkaale kon mbokk yi jàng wala déglu dars yu mel nii waxtaan yu mel nii daf ñuy ubbil ñu war a xam lan la ñu war a barkeelu lan la ñu war a raay lan lañ war a takk da ngay gis tey dëkk bi foo tourné gis ñu takk ay photo takk photo dafa xaram ki ko takk lan la ci jublu day barkeelu ak ku mu mën a doon su fekkoon ne dagan na kon danañ gis Serigne Sëñ Touba mu takk photo bu fekkoon ne dagan na kon danañ gis Alaaji Malik mu takk photo bu doon dagan na ñu gis ñeneen ñi mel ni ñoom ña ñu bokkaloon jamono ne takk photo mais ñooñu doo ci gis kenn ci dënnam bu taxawee mu takk photo kon ñun ñi takk photo yi fu ñu ko jëlee bëgg bi ngay bëgg dara denc ko ci sa xol yenent bi nee na almar u ma aman ahabba koo bëgg rek yowmal xiyaam di nga nekk ak moom koo bëgg almar u ma aman ahabba benn sahaaba dafa jeex takk yaram bi dafa jeex bët yi dugg mu sew yonent bi xool ko ba càgg ne ko diw mu naa mu ne ko loola dal lan moo la jeexal nii mu ne ko yonent bëgg la rek moo ma jeexal nii dama la bëgg ba su ma demee sama kër minutes yi may toog du ma la gis du ma xam fu ma nekk loolu moo ma def nii ma mel te xam naa ne yowmal xiyaam même man bu ma duggee aljanna xam naa du ma nekk ak yow parce que yow yaa may raw te man wax dëgg yàlla bëgguma tàqalikoo ak yow rek aaya bi daal di wàcc yàlla mu ne wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma al lazina anama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa sohda wa salihin wa xasuna ulaika rafiqa ku topp yàlla topp yonent kooku topp yàlla ak yonent ëllëg yàlla dina ko booleeg yonent yi yàlla dina ko booleeg sohada ñi doon xeex ci yoonu yàlla ba dee yàlla dina ko booleeg saalihin yàlla dina ko booleeg ñëpp ñu baax yàlla mu ne ñooñu amul ku leen gën a rafet ci nekk xarit almaru ma aman ahabba nit koo bëgg rek ànd ak moom ëllëg yowmal qiyaamati loolu moo tax soo bëggee nit jarul takk jarul di ko manifester wu ci mbedd mi jarul di ko takk ci sa dënn jarul di ko dessiner ci sa miir jarul wékk sa saal pour ku dugg xam ne yow li gën a rëy ci jullit am importance mooy ku la gis xam ne jullit nga yàlla ba muy tagg ñi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxul ku dugg seen kër gis fa ay photo waxul ku xool seen oto gis fa seen photo lan la wax muhammadun rasulullah wallazina amanu maahu ashiddaau ala alkuffar ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaguuna min fadlillah nu mu ci teg bàyyi bi continuer mu ne wa siimaahum fi wujuhim min asri sujud ku leen gis rek day xam ne ñi ay jullit lañ ndax màndarga yaa ngi ci seen kanam siimaahum fi wujuhim loolu doy na doy na xàmme kaay soo génnee ñu xam ne jullit nga waaye boo solul mbubu def nangam ak nangam jëm ca jàkka ja rek ñu doog a xam ne kii jullit la loolu doy na waar même jigéen ñi sax yàlla dane woon nañu muuru pour ñu xam ne ay jullit lañ ñu mën leen a xàmmee ak ñi nga xam ne duñu ay jullit gis nga bu góor ak bu jigéen a ci yem màndarga jullit du koy mo du ko du mu koy wanewu ci li mu takk du mu koy wanewu ci li mu sol du mu koy wanewu fa mu nekk waaye aw dundin la wu nit di dund boo xam ne boo ko dundee ñu xam ne yow jullit nga ixwaan yi tawbiixullahi lil mushrikin yàlla ŋàññi na bokkaalekat yi lu tax yàlla ŋàññi leen ala taazimihim li haadihi l asnaam ndax màggal guñ doon màggal xërëm yii mooy laata uzza ak manaat yàlla ŋàññi na bokkaalekat yi ndax dañ doon màggal xërëm yii ay nit yu baax lañ wala garab la bu ñu samp di ci barkeelu wala nit ku baax la woon ku dee ñu defal ko estati teg ko fa mu daan toog di ria di ziyaare estate bi tey di nga dugg ci suñu kër yi di nga gis ma misaalu mag ñi mag ñi misa seeni misaal nga gis ku ko ku ko defar photo bu ngand def ci saalam wala mu def ko benn ngandum estati def ci saalam loolu dafa xaram waxuma la sax lim lay lor parce que fépp fu photo nekk ku fa julli kenn du nangu sa julli fépp fu estati nekk ku fa julli kenn du nangu sa julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci joxe ndigal fu xaj nekk malaaka yërmande du fa dugg fu estati nekk malaaka yërmande du fa dugg kon yooyu nañ ci bàyyi xel ñu génn ko ci suñu biir kër yi mu ne yàlla ŋàññ na bokkaalekat yi ndax barkeelu guñ doon barkeelu raay ak a fóon ak a def yu kenn xamul ñetti xërëm yi muy laata uzza ak manaat wa hiya min ashhari wa azami al asnaami fi zamani al jahiliya mu ne ñett yii dafa bokk ci yi gën a siiw yi gën a mag ci ay xërëm yu ñu xam ca jamonoy ceddo ga ñett yii dafa bokk ci yi gën a rëy yi gën a màgg ca jamonoy ceddo ga yii dafa bokkoon ci yi nit ñi di barkeelu wa kaanu yatlubuuna minha nee na dañ ci daan sàkku barke dañ ko daan raay dañ ko daan fóon dañ ko daan jox ñam di ko sottil ay soow di ko defal lu nekk di ko jëme ci seen bopp wala sax ñu jël seeni doom di fa yóbbu pour seeni doom am barke wala seeni doom aaru yemul sax ci loolu wala seen alal sax dañ ko fa daan yóbbu ngir seen alal am barke fa kaanu bi haada mushrikin loolu moo tax ba ñu defee loolu yàlla ne leen yéen ay bokkaalekat ngeen tey daanaka mën nga ne li nit ñi di def ci jamono bi moom moo amoon démb rek yàlla di ko tere bokkaalekat yi mbokk yi te loolu bokkaale bu mag la te bokkaale bu mag saa yoo ko déggee rek mooy ki ko def sunu borom subhanahu wa taala du ko jéggal ay bàkkaaram man gis naa waajoo xam ne kër ga mu nekkoon benn shérif fa fa nekk waa këram ñoom ñooy fóotal shérif bi shérif bi bu yëreem tilimee wala waa këram seen yëre tilim daf koy ëmb indi ko këram bu ko ëmbee indi këram bu ñu fóotee première fóot bi sumb bi ndox mi póotin mi kenn du ko tuuri dañ koy jël xëpp ko ci kër gi fu nekk ñu ne ndax kër gi am barke póotin bi kenn du ko tuuri ci mbedd mi kenn du ko sotti ci dus bi ci biir kër gi lañ koy sotti dañuy jël pot naan ko nii ba kër gi yëpp daj maanaam ndox moomu ñuy fóote yëre shérif bi kenn du ko génn kër gi lépp ci kër gi lañ koy këpp xolo loolu loolu bokkaale la fóotin tilim la dañ ko war a tuuri ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yéen yéen a ko gën a xam yéen ñi dëkk ci réew mi ay mbir yoo xam ne nit ñi dañ koy def di bokkaale gis naa ñoo xam ne benn waay boo xam ne dafa ñëw ci benn doon seet si benn taalibeem ci benn boulangerie bi mu ñëwee julli fekk ko fa mu daal ne ki mu seet si woon abal may daal carax kooku daal di génn xool apprenti bi ku ci sol daal carax mu ne ko sëñ bi nee na nga abal ko daal yi day julli ñu abal ko daal yi mu dem jàpp julli mu pare daal di tàggatoo ak ñoom dem ñibbi patron bi ñëw rek daal ne waa ji jaay ma sa dàll yi loo ko jënde woon waa ji ne ko téeméer mu ne ko jaay ma ko waa ji ne ko mille mu daal di génne mille daal di jël dàll yi kooku ne ko waa looy dee daal yi mu ne ko lee daal yi sëñ di sol yi ko yow xamoo li yii kenn dootu ko sol ci àdduna dama koy jël doñ ko sama biir armoire sëñ bi da ko àbb rek pour jàpp gis nga bokkaale yooyu loolu loolu la ñuy tere jullit sooy ut barke dangay ut barke ci yàlla ah xoola ki àbb daal rek ñu ne daal yooyu kenn dootu ko solati ki yéeg ci oto wàcc ñu daal di jël oto bi daal di koy muur baas ne oto bi kenn dootu ci yéeg parce que diw yéeg na ci xam nga loolu dëgg-dëgg nit ñi war nañu delloo si seen xel xam ne lii dugal nit aljanna du caaxaan yii lii dugal nit aljanna mooy jaamu yàlla mooy al ibada loolu yàlla wax wa ma xalaqtu l jinna wal ins illa li yabuduni yenn saa yi nga gis ku naan ci kopp nit ñi di ci reyante ah yenn saa yi nga gis nit ñi di laa ilaha illa allah benn njaganaay bu waa ji doon toog waa ji dee rek nit ñi di xëccoo njaganaay bi wala sijaada bu mu doon jullee nit ñi di ko xëccoo wala place bi mu doon toog wala nangam ak nangam yooyu l'islam daf ko teel a tere pour nit ñi bañ ko dugal ci seen bopp yi dem jaamu ji yàlla moo gën ñuy xëccoo ay barke barke soo ko bëggee da ngay jaamu ji yàlla boo jaamoo yàlla yàlla moo yor barke wax naa leen sànq aaya bi tabaraka allazi bi yadihil mulk yàlla moo yor barke soo bëggee barkeel sa alal barkeel say doom barkeel sa njaboot barkeel yow nga barkeel jaamul yàlla nga sant leen ñu jaamu yàlla kër gu bugg a am barke kër googu nañ fa sant nit ñi ñu jaamu yàlla barke daal di fay wàcc waaye kër gu ñuy mooy yàlla kër gu ñuy njaaloo kër gu ñuy déglu musique kër gu ñuy sol yëre yu bon kër gu jigéen ñi di def bopp neen kër googu barke mënu fa wàcc barke bu fay wàcc day romb kër googu kon mbokk yi nañu xam ne yàlla subhanahu wa taala bu ŋàññee bokkaalekat yi li annahum abaduha ndax ñoom dañoo jaamu yii min dunillahi bàyyi yàlla hiina talabu barakatiha ba ñu demee di sàkku yii di sàkku ji barke ci yii yàlla ŋàññi leen ne leen yéen ay yéeféer ngeen yéen ay bokkaalekat ngeen kon ñun bu ñu ñëwee jaar foofu yàlla subhanahu wa taala daf ñuy ŋàññ moo tax wa ma hiya illa awhaamun ay caaxaan la ay def def la rek loolu ñuy wax ay caaxaan taxayaluha la xaqiqa laha nit ñi ñoo koy imaginer dama jël léegi léegi benn kaas daal ci naan ma pare ku nekk bëgg naan ci kaas bi ñu koy xëccoo ba reyante ci nit ñi ñoo yor image rek man dama am barke kaas bi ma naan kon barke baa ngi ci kon ku ci naan da ngay am barke loolu yéen a ko xalaat rek yéen a ko xalaat rek yàlla subhanahu wa taala ba gaa yi dem di jaamu ay xërëm lan la yàlla wax wala di jaamu ay nit yàlla mu ne yéen ak ñi ngeen di jaamu xamu leen sax yéen ak ñoom kan moom a ci gën a jege. amaana ki ngay dem di ut barke ci moom yow yaa ko ëpp barke mais da ngaa yaakaar ne rek yére bu mu sol wala sikkim bu mu am wala kaala bu mu am wala sant bu mu am wala diw mu ko jur rek nga jàpp ne am na barke. bu leen fàtte ne kay nuux am na doom ne doom jaa ngi safara kan ci ñun mooy imaginer yonent bu toll ne nuux ulul azmi min ar-rusul bu doon sunu xel kese kese kese kese mooy xalaat ñu ne doomu nuux a ngi nii tey bu kenn nit ñun musuloon gis doomu nuux xamaloo ko dara mu ñëw toog sa wet looy wax ci moom li ngeen di wax ku bon la sa xel du la ko may sax nga naan doomu nuux ku bon la loolu yàlla rek moo ko wax parce que yàlla moo ñu ko wax ci alquran mu ne doomu nuux boobu baaxul mi ngi safara jabaru firawna kenn ci ñun tey bu benn jigéen taxawoon ci kanamam ñu ne kii jabaru firawna la looy xalaat ci moom di nga xalaat ci moom mbaax di nga xalaat ci moom aljanna pourtant yàlla nee nañu soxna soosu mu ngi aljanna kon mbir mi fan la nekk kon nekkul ci ñun lu ñuy foog mais dëgg la réalité la boo xam ne yàlla daf ko wax ku bëgg am barke ku bëgg a dugg aljanna demal nga jaamu yàlla subhanahu wa taala gis nga ñi nga xamante ne dañ doon jël mbir yooyu lu mel ne ay garab lu mel ne ay xeer lu mel ne ay weñ di ko takk wala di ko naan wala di ko sangoo wala di ko raay ñooñu lan la leen yàlla wax ci Qur'an ci suratu najmi ba tey aaya 23 yàlla mu ne in hiya illa asmaun sammaytumuha antum wa abaukum ma anzala allahu biha min sultaan in yattabi'una illa zanna wa ma tahwa al anfus allahu akbar in hiya lii nekkul illa asmaun lu dul ay tur sammaytumuha yéen yéen a ko tudde tur yooyu rek antum wa abaukum yéen ak seeni baay waaw garab goo fi gis wala xeer boo fi gis wala ndox moo fi gis wala loo fi yaakaar rek nga koy raay yow yaa ko tuddee noonu wala seeni baay yu leen jiitu woon ñoo ko tuddee noonu yéen ngeen ñëw continuer ca loolu in hiya illa asmaun sammaytumuha yéen yéen a ko tuddee tur yooyu waaye yàlla wàccewul ci alquran daan ne lii lii la est-ce que am na amul kon nit ñi rek la moo tax Omar ba mu gisee nit ñi fëx bëgg a dem ci garab googu yonent bi toogoon di ko barkeelu Omar joxe ndigal ñu gor garab gi ba mu jeex takk lakk ko ba mu nekk dóom gas ba mu xóot suul ko dëgg-dëgg bu fekkoon ne barkeelu kese am na njëriñ kon garab googu kenn du ko dagg kon danañ ko bàyyi nit ñi di ñëw di ko raay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toogoon na ci suufu keppaar gi mais loolu amul njëriñ toog fu yonent bi toogoon wala laal lu mu laaloon. te jéemoo def li mu doon def amul benn importance li am solo mooy nga jaamu yàlla jéem a topp sunu borom subhanahu wa taala jéem a topp santaane yi peeg tere yi mooy te ndiku li mu tere loolu mu am njëriñ islaam xamul tur xamul sant xamul dëkk xamul xamul yooyu bu fekkoon ne lislaam xam na dëkk kon ñoom abu jahlin ñoom aba lahab duñ dugg safara fan lañ juddoo màkka mbokki yonent bi lañ kon baayu ibrahima du dem safara kon doomu nuu du dem safara kon jéem a bokk ak ku baax amul njëriñ jéem a la baax moo am njëriñ jéem a bokk ak ku baax amul benn importance yow jéem a la baax jabaru firawna ngi ne dem aljanna te jëkkëram mooy ki gën a yées ci àdduna mooy firawna te jabaram dem na aljanna parce que lan parce que jabar ji dafa jéem a baax mbokk yi sunu borom nee nañu yooyu ngeen di raay wala yi ngeen di takk wala yi ngeen di xeeñtu ngeen yaakaar ci barke yéen yéen a ko tuddee noonu rek antum wa abaaukum yéen ak seeni baay waaye ma anzala allahu biha min sultaan yàlla wàccewu ci benn lay li tax ngeen koy def du yàllaa ko wax yàlla waxu ko day gis fii tey ci Sénégal aka bari ay pala ay barab yu ñuy dem di fa barkeelu barab yooyu ñuy dem di barkeelu di raay di fóon damay laajte yéen ñi toog fii ci biir jàkka ji fan la yàlla wax ci alquran dem leen barab boobu ngeen raay ko am na fan la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax amul fenn kon lan moo nu tere topp yàlla lan moo nu tere topp yonent mooy farfarloo rek fii laa bokk fi ma bokk dañuy def lii dama koy def sama papa ak sama yaay fii lañ bokkoon année bu nekk dañ daan dem di def lii dama koy def même bu fekkee sa ndey ak sa baay li ñuy def yàlla da ko araamal yow da ngay def mooy ngumba ngumba loolu mooy ngumba dëgg dëgg dëgg dëgg loolu mooy loolu la yàlla na loolu loolu la yonent bi di wax al toppe dëgg dëgg nit dafa war a am xel sunu borom subhanahu wa taala mi ngi jàngale ci alquran mu ne ñooñu nga xam ne dañuy topp seeni ndey ak seeni baay ci ay mbir yoo xam ne yàlla da ko araamal xam nga yàlla lu mu leen misaal yàlla da leen misaal comme mbaam yàlla da leen misaal comme kuy woo xar wala nag wala bëy parce que xar ak bëy soo koy woo day dégg yaa ngi koy woo mais xamul li nga koy wax su ko defee ñu bàyyi xel bu baax mbokk yi lii ñu yàlla di wax gis nga yàlla mu ne in yattabi'una illa zanna dañoo topp rek ay njort njort man de wax dëgg yàlla yaakaar naa ne lii fii moom bu ma fi toogee wala witteen bi bu ma ci bu ma ci bu ma ci ñoqatee wala yére bi wala garab gi wala bàmmeel bi wala in yattabi'una illa zanna ay njort rek la ñuy topp in yattabi'una illa zanna yàlla nee na ay njort rek nit ñi dañuy njort rek yaakaar naa photo bi bu ma ko takkee yaakaar naa ne garab gi bu ma ko yaakaar naa ne njort rek te xam ngeen ne yàlla nee na inna baada zanni ism njort li ci ëpp bàkkaar la li ci ëpp bàkkaar la njort benn waay gëléemam dafa réeroon gëléem xam ngeen gëléem gëléem waa ji réer mu dugg benn kër di ko seet jàpp ci xelam ne ñii ñoo sàcc gëléem gi mu ñëw ñooñu ne ko kër gaa ngi noonu wëral mu wër wër wër wër wër wër wër wër ba sonn gisul dara mu gis inde xam ngeen inde xam ngeen inde mu gis inde bu dëpp mu koy dëppër ni di ci seet gëléem gi xam ngeen inde xam nga inde xam nga ko aywa mu gis inde bi dëpp de mu koy dippër ni parce que moom dafa jàpp ne rek waa kër gi ñoo sàcc sama gëléem kon kër gi lépp laa war a xool léegi wër na ba sonn gisul mu romb inde bi dëpp mu koy dëppërndi ñu ne ko lan la mu ne gëléem gi laay xool xam nga njort weesuwul loolu xam nga ne gëléem kay mënut na butt ci ci ci ci inde waaye njortam moo ko fa yóbbu moo tax yàlla ne inna baada zanni ismun li ëpp ci njort bàkkaar kese ngay demee yàlla yemul ci loolu mu ne wa ma tahwal anfus yemu leen ci njort waaye da ngeen a topp encore seeni bakkan li mu bëgg wa ma taxawal anfus da ngeen topp seeni bànneex rek ki dem di raay garab wala muy raay xeer wala mu koy fóon wala ah mu fekk benn waaye ñu ne fii la toogoon mu toog fa wala nangam ak nangam njort rek njort la demee njort in yattabi'una illa zanna wa ma taxawal anfus ak bànneexi bakkanam kese mbokk yi wa ma yaxsulu mimman yusabbibu ila al islam mimman yantasibu ila al islam min at-tabarruki bil qubur wal ashjar wal ahjar mu'taqadan annaha tanfa aw tadur fa huwa min jinsi tabarruki bil tabarruki al mushrikina nee na lii xew léegi ci li ëpp ci ñuy askanoo ci lislaam di ut barke ci ay bàmmeel da ngay gis ziar am fenn nit ñëpp dem bu ñu demee lan la ñuy def dem ci bàmmeel yi di ko raay yenn saa yi sax nga gis ku tibb ci suuf si ñëw naan li bàmmeelu diw la ñëw def ko ci ndox mi ci ndaal yi nit ñi di naan loolu dafa aram loolu mënuñu jëriñ loolu du la jëriñ jaamu yàlla rek mooy jëriñ nit nit alxayru laa yanfau illa li failihi lu baax du jëriñ lu dul ki ko def wa charru laa yadurru illa li failihi lu bon du lor lu dul ki ko def waaw boo nekkoon ak junni nit ñoom ñëpp ñuy mooy yàlla te nga ànd ak ñoom seen lu bon loolu du la lor waaye yow tamit sa jaamu yàlla gi ngay def du leen jëriñ waaw jaamu yàlla moom ki ko def rek lay jëriñ waaye ki ko deful mun laa jëriñ ak ku mu mën a doon ci yow kon ñooñu di ko def te di askanoo ci lislaam di barkeelu ci ay bàmmeel di barkeelu ci ay garab di barkeelu ci ay xeer ñuy gëm ne lii dana leen jëriñ wala dana leen dindi lor nee na moog bokkaalekat yi liñ doon def démb ca màkka moo yem kon fal waajib alal muslim li war ab jullit allaa yualliqa qalbahu illa billahi wahdahu li war ab julit mooy mu bañ a aj xolam ci kudul yàlla jullit bu ñu doon ubbi xolam waruñ cee fekk kudul yàlla waaw bu fekkoon xol yi am na tournevis am na wiis ñu koy ubbi démonté xool xol bi ñu ubbi ubbi ba ci biir waruñoo fekk ci xol bi kudul yàlla saa yu ñu ubbee sa xol ñu fekk fa lu dul yàlla yëgal na yow jullit bu setul nga yow setoo yëgal ne yow jullit bu baaxul nga jullit xolam yàlla rek moo ci nekk xol dafa tuuti ba yàlla rek moo ci xej yàlla moo tax mu ne koo ci dugal rek ma daal di génn bàyyi fa kooku ma seet ndax kooku dina la jëriñ loolu moo tax foog ñu génne bokkaale yi génne xeer yi génne pas-pas yi génne lam yi génne génne génne bàmmeel yi génne lépp ci sunu biir xol yi dugal ci yàlla subhanahu wa taala kese fekk defuñu loolu dañuy sonal sunu bopp da ngay tudde sa bopp jullit di dem jàkk guddeeg bëccëg di rukoo di sujoot fekk yow xam nga ne sa digganteeg sa yàlla setul dafa lëndëm parce que yàlla dafa am ñoo dugal ci sa digganteeg moom te yàlla du nangu loolu bu fekkoon ne barkeelu ci dara ah ci ay garab ak i xeer daganoon na kon sahaaba yi sala daal di koy def ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi kenn du ko suuli kenn du ko suul waaw keroog ba ñu yonent bi génnee àdduna ñu daal di koy jël denc ko ñu ñibbisi Fatima dafa jàkkaarloog Bilal ne ko Bilal mu ne ko ah mu ne ko li ngeen def seen yaram dawul mu ne lu def mu ne ngeen jël ku toll ne Muhammad gas suuf ba mu xóot dugal ko ci biir ay yéen ndeysaan Bilal ne teg ba caagu mu ne ko innahu amrun min awamirillah loolu santaane yàlla la law araada abuka an naj'alahu ala firasin zahab bayna samaa'i wal ardi la qumnaa bihi mu ne ko sa baay billaahi su bëggoon bi mu faatoo avant muy faatu su bëggoon ne bi mu deewee ñu teg ko ci piliyaanu or yëkkati ko ba muy laal asamaan bi ñun dinañ ko def waaye nag yàlla nee na minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra yàlla nee na ci suuf laa tibb bindi leen bu ngeen deewee ñu dugal leen ci suuf bu ngeen di dekk ñu génne leen ci biir suuf waaye yonent bi bu ne woon su ma deewee na ngeen ma teg ci piliyaanu or yow yëkkati ma ba ma dem asamaan sahaaba yi dinañ ko def waaye nag yàlla li mu santaane mooy ku dee ñu suul la moo tax ñu suul ko kon bu fekkee yonent bi la ñu suul wàqi suuf si ba mu xóot dugal ko ci biir wàcce suuf si ci kawam kon keneen ti ñun kon keneen waxi noppi keneen waxi noppi kon ku dee rek suuf si dina la war maadaama Muhammad la suuf si war kon ku yeba noppalu ku yeba rek jaamu yàlla jaamu yàlla dong dong dong mooy tax jullit mucc yowmal qiyaamati leneen lu dul jaamu yàlla du dem foofu mbokk yi fal waajib alal muslim li war ci jullit an laa yualliqa qalbahu illa billah bu mu aj xolam ci kudul yàlla waxdahu wa an laa yataallaqa bi gayrihi bu mu aju ci keneen wala leneen waaw tey lii dafa doy waar da ngay xool réew mi tey fii ñu toll ay nit dimanche passé laa doon seetaan télé dimanche dama jékki-jékki rek am ku ma woo téléphone ne ma jàppal seen sàngam man man daaw ma faral di seetaan seen yooyu mu ne ma jàppal seenu sàngam ma changé sama télé rek ma dégg loo xam ne dama rëccu li taxoon sax ma koy seetaan nga dégg ay nit naan yow lañ jox suñu bopp àdduna ak àllaaxira loolu nu ko nit di waxee nit nit nu muy waxee loolu nit jox naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira nu ko nit di waxee nit nu ko mbindeef di waxee mbindeef moroomam jox naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira allahu akbar koo xam ne xamul ndax dina yendu bu fanaanee xamul ndax dina xëy bu yendoo xamul ndax dina fanaan xamul suba luy xew laa yaalamu alxayba man fi samawati wal ard illa allah wa ma yasuruuna ayaana yubasuun nga ñëw ci moom ne ko jox naa la sama bopp saxaaba yi day bañ daan tuub ci yonent bi kenn ci ñoom musul ñëw ci yonent bi ne ko jox naa la sama bopp àdduna ak àllaaxira amul saxaaba yi ku ñëwoon daan tuub di jébbulu xam nga lu muy wax ashhadu an laa ilaha illa allah maa ngi seede ne yàlla lañ war a jaamu wa ashhadu annaka rasulullah maa ngi seede ne yow yonant nga waaye duñ jox yonant bi seen bopp ndax yonant bi sax boppam yàlla la ko jox moo tax su daan waat danaan wallazi nafsu muhammadin bi yadihi moom joxul woon kenn boppam ku dul yàlla moom it moo tax saxaaba yi joxuñu ko woon seen bopp léegi nag bu fekkee saxaaba yi joxuñu woon muhammad seen bopp kon ñun kan la ñuy jox suñu bopp yàlla bu ñu bëggee texe nañ jox yàlla suñu bopp mbokk yi faman faala zalika képp ku def loolu faqad shaabahahum nuroo na ak ñële fii fiilihim ci seeni jëf képp koo xam ne da ngay raayi garab di raayi weñ ndeysaan da ngay gis nit ñi misaal ñu ne jàkka ji de yonent bi mus na fee julle nga gis gaa yi ñëw di raar di raay karo yi karo yi mais lii karo la rek lii siin la jóge ba demee ba ci ba màkk ngay raay jàkka ji amul njëriñ karo yooyu siin la jóge sijaada yi chinois yi ñoo ko defar mi ngi mi ngel ne suñu sijaada yi rek yii boo ñëwee tey ngay raay sijaada yi sijaada yi siin la jóge kon boo ko raayee nii ndax dañ ko dugal ci jàkka ji nga ni nii ban njëriñ la am li siin la jóge yenn saa yi sax nga gis li ngay raay fekk ay jullit defaruñ ko dafa ne loolu barkeeng ci xam nga fu mu jógee Côte d'Ivoire waaw loolu la kon jaamu yàlla mooy tax nit am barke jaamu yàlla mooy tax nit am barke boo jaamee yàlla ba yàlla kontaan ci yow nga am barke yàlla defal la barke moom moo la ko wax nee na barke ci sama loxo la nekk sama loxo la nekk ah tabaraka allazi bi yadihi al mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir soo ko defee yàlla defal la barke bu dee loolu rek nga bëgg mbokk yi wa man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum ku dem fekk ay bokkaalekat la ñuy def nga def ko yaa ngi ñoom a yem yaa ngi ñoom a nuróo képp ku fekk garab nga raay ko wala nga fekk bàmmeel nga raay ko wala nga fekk photo nga raay ko mbaa sijaada mbaa lu mu mën a doon boo ko raayee yëgal ne def nga yëfu bokkaalekat yëgal ne yaag bokkaalekat yu njëkk ya yéen a nuroo te képp ku nuru nuru lu ay nit yàlla dekkil la ak ñoom mbokk yi loolu moo doon darsu tey ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah